di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi laataa loolu dama bëggoon rek jaale ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkkoon seen bakkan ci yoonu màggalu Tuuba bi parce que yaakaar naa ne coow li jamono jooju la woon mënuñu ko woon boole ak wax parce que Sénégal mi doon nekk ci semaine boo xamante ne dund nañ ci bànneex dund nañ ci tamit naqar naqari mooy di jaale képp ki nga xamante ni julit la wala doomu senegal ci xalifa leewna ñeeseen boobu ko fi cheikh ibrahima ñas ñi nga xamante tamit dañoo ay blessé ci aksi si yoonu touba bi tamit ñing leni leen di nyana di leen ñaanal yalla mu fëgg seen bop ba ñu wér delluwaat seen soxla banex bi nak moy suñu qualification lion yi tamit di leen si andak ñom di partager bonheur bi ak ñom donc semaine la bo xamante ne am nañu dañoo partagé naqar partagé euh, banex donc mo taxone ma préférer woon euh, bàyyi ba semaine bobu jeex ba ñu dugg ci semaine bu bees ñu doog indi ay waxtan waxtan bi nak lu ko waral lenn la man du ngeen ma gis sax d'habitude may nekk fi di tontante yenn wax yi à chaque fois su ma di wax ci lu soxal ci coowal Sénégal ak lu koy jëmale kanam ci yooyu lay dox waaye dafa am loo xamante dama ko doon bàyyi mu jàll mu depuis le 7 novembre ba ñu ne ëllëg euh, suba la magal bi muy loo xamante ni daf ma naqari toog naa bàyyi 22 heures nit yónnee ma message na ma tage ma ci benn commentaire ma dem xool mu nekk Françoise Hélène Gay, bind ne Seydina Seck moom mooy def liggéey bi nga xamante ni. ci mbirum asan Diouf moy les faux documents yooyu ñuy wax mom mo nek ci ginnaaw mom mo masquer sa voix mu nek lo xamantene ne nakari la ndax liggéey bu rafeté noonu suma ko defoon au contraire dama ci ndamu mais ñu nek ci dëkk bo xamantene ne yëguma tiiñu ma tamit ñi nga xamante ñom ñoko def yalla xamna ni musuma waxtaan ak ñom wala musuma gisanteeg ñom wala waxtaan ak téléphone première fois bu ma njëkk wax ak ki nga xamanteni euh moy le Sénégal de la vérité ndax liggéey bu rafet ba ñum ñoko def ma leen ci encourager di leen féliciter parce que loolu damay ñaan sax bu mu yam sax ci mbirum asan ju may yam na jëm fépp nga xamanteni sénégalais war nañu mëna xam lu jëm ci walu zircon bi pétrole bi lépp lu war sénégalais war umpelé war nañ fa mëna a jëmal liggéey boobu ndax sénégalais mëna mën le 29 octobre moy premier jour bi nga xamanteni mom la laa bind envoyer message

mais kantaa nga dem na tagee ma jël sama photo def ci nit ñi di ma saaga fu nekk loolu tooñeef mënu kaa weesu donc dama juré ni liggéey boobu xaw fu ñu ko defee xaw fu ñu ko nase dinaa si ñëwaat léegi coow li du loolu ki nga xamante ni daf na dugaloon na vidéo muy wax mais waajooju wax na waajooju wax na te indi na ay leeral dama bëgg ñu ànd déglu leeral yooyu bu leen dem ngir yalla rek parce que amna lu beureu lo xamante dafa mo jur wax parce que aussi amna yo yoo aussi il est temps ñu mettre les les points sur les i il faut ñu leer xam nit ki moy kan am ay mbir yo xamante ay ay enregistrement audio dinañu ko tek di ngeen xam kan moy kan moy nit ki damay ñëw tek waaji nga xamante mom mo moo dugaloon vidéo bi li nga xamante mom la mom la wax di weddi li nga xamante mom la François Hélène di dama accuser accusé te yëguma ko kon ma téléchargé live bi ma def ko sama ordinateur ma déglu ko ma coupé benn partie bu ma intéressé ma coupé partie bi ma jël ma propre initiative modifier voix personne ne m'a demandé de modifier la voix j'ai modifié la voix pour créer un effet de suspense et de film ma modifier voix bi def ci une musique de fond def ko ci YouTube une ou deux heures après la vidéo a eu 3000 vues nit ñi encore, on a am a des commentaires des commentaires des commentaires mais aussi hmm, des polémiques eh, polémique les réseaux sociaux les partisans de Françoise Hélène ont accusé à accuser limite une ñu une dans la vidéo Pourtant, pourtant on de la vidéo il a dafa def intervention qui benn live ci en live boobu sa voix n'est pas masquée kon coupez gis ma vidéo dem gis live bi day xam ne kooku masqué wul baatam ne wul masqué wul baatam man dama masqué baat bi def ci musique de fond juste pour euh, agrémenter la vidéo mais comme on a accusé des gens qui n'ont rien à voir avec ma vidéo ma seule décision supprimer vidéo bi si vous regardez le dernier live de Françoise Hélène Kay, di ngeen di gis ni moom cité na ay tur yu bëri cité na ay tur yu bon xama relation bu François ak ñom je ne les connais pas. bon bëggoon mu nekk lo xamanteni heure bu rek yalla suñu borom daf may atté ak mom heure bu ma may war ay vidéo yo xamanteni may ci liggéey bobu man liggéey bobu suma ko defoon amul ma mais nak gis liggéey bu rafet nit ay nit def ko euh, euh, di wut ay moyens logistique moyens financier def liggéey gu mel ba paré ñu bëgg mako coller loolu maa ngi def fukki jëf te yàlla na ma si yàlla musal du ma ko def parce que ñu bari dañ ma woo di ma félicité naa ma sa liggéey bi vidéo dafa dafa am solo ma ne leen liggéey vidéo bi du man donc mention spécial ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Sénégal de la Sénégal de la vérité ñoom ñoo def liggéey bu mucc ay boobu euh, Françoise nag lu ko tax di wax ak di dal yëpp yaakaar naa ni ci fin vidéo ku ko seetaan lu ko ci waaju tudd ne ko na nga xaar sa wàll loolu moo waral coow li yëpp mais man nag du ma gudd ci lu bari damaa toog le 22 octobre benn góoru mbootaayam xam na bu baax ko may wax mu woo ma fekk man maa ngi def péncum diaspora numéro 16 le la 20 la génn ci su ma jumulee waa ji woo ma ne ma Seydina seetaan naa sa vidéo bi vraiment li nga wax ci Assane Diouf euh, Assane Diouf vraiment loo wax ci moom rek doyul ndax waa ji du nit moom waa jooju de wax ma loolu man lépp lu may wax kaamin bi laa ci teg seede kaamin bi laa ci jël teg ci def ko seede mu ne ma ma ne ko mais pourtant yow tout le temps da nga daan partage ay live Assane nga ne yow yaa Assane moo fi moom mooy moom mooy xalif général kulli live mu ne ma boobu dama kanaan def parce que xaritu Hélène laa woon man xaritu Hélène la man la mais Hélène xaritu Assane la mu ne ma déedéet Hélène bàyyi na Assane Hélène xam na ni Assane fenkat la moo tax mu bàyyi ko waa ji moom wax loolu kaamin baa ngi nii le 22 octobre le 23 octobre eh, Hélène Hélène si boppam woo ma ba ma wooy fekk maa ngi waxtaan sama benn xam ma ne ko Hélène de woo mu ne ma lu ma lay conseil mooy waxal loo xam wala nga enregistré ko ma déglu ay def loolu Hélène lu mu yàqul keroog Assane Diouf amul le 23 octobre bi pa bi passé laa leen wax ah. lu mu yàqul Assane Diouf amul neen na juf Diouf sa yi ñu wax yëpp ay fen la dinaa teg audio bi legui di ngeen ko deglu benen bi mu ma mi ngi ànd ak ay nit ay jigen di di di jël ay fonds aux États-Unis donc mu nekk affaire yo xamanteni affaire yu affaire yu garaaw la dem na sax ba ni sax ko ayé mu tuddu turu Assane ci kër gi. dina fi ñew léegi ak yéen ci kanam mais lu bëgg xam rek moy dafa am yo xamanteni ñi yaa koy dund munoo nekk benn nit. bëgg a xuloog euh, Njawar Mader Fall Cheikh Sadibou Diop Cheikh Sadibou Kebe Mati Trois Pommes Seydina Omar Ba Baba Aydara nga xamante ne ku mu xulool yaa ko tooñ te boo paree li def li ngay def da ngay taxaw sa caméra di victimiser wu taxaw ne ni ñëpp naan man kay defuma kenn dara alors que yow lu ñuy wax yëpp yëpp yaa ko def man ba ma dundee lu ñu mel laa xam ni kii lépp lu ñu ko waxal moo ko def àdduna dañ cee soxla nit ku dëggu man nag damay reconnaissance sa détermi sa sa détermination dama koy reconnaître damay reconnaître son engagement lu lee dama koy reconnaître mais nit ñaari valeur boo ko ñàkkee rek man dootuma la considérer comme nit muy nga nite ak nga dëggu te ñaar yooyu malheureusement gisuma ko ci Hélène naa féq rek mooy def loo xamante ne taxaw parce que naa féq yi ñoo sonal ak ñoo sonal Assane Diouf moom muy jàppale man sama position dafa leer ñëpp xam nañ dès le début ànduma ak moom d'accord ma ci ni muy doxalee kooku dafa leer man noppal naa Assane Diouf xam ne ni man du ma boole ci ay auditeurs mais lu gën a bon mooy boo ñëwee taxaw wax nit ki mu tag mu mu tagg la tagg say maam yëpp boo boo coupé live bu paree ku mu njëkk woo téléphone ay saaga ci tegal ay fen la la ci tegal loolu moo grave si nit loolu mooy jikko naafeq te boo paree taxaw ak nit ñi naan woy man kay dañ may tooñ rek man ku ma boole diw mu war ma man sa ay Sénégal yàlla moo may àtteeg nit ñi yàlla mënu la boole tey jii ñi moo ñoo fi tudd ñëpp ay nitu jàmm lañ ça fait des années ça fait des années musu ñoo gisante mais ay jàmm la ñu seq ñun ñëpp ñun ñëpp jàmm la ñu seq mais une deux live au lieu que nga dem nga ne yaa ngi bitim nga dem fas sa jom dem liggéeyi ba sa tante boobu nga xam dafa feebar waa waa servir le Sénégal ñoo ko faj te amoo reconnaissance taxaw sax remercier Marème Faye Sall xamu ndax wax nga leen wala waxoo leen ko nit da ngay da ngay da ngay da ngay nite ba pare nga teg si nga dëggu man nag duma gaaw di wax mais kenn du ma tooñ parce que le fait que boobu ba tey commentaire yi fu ñu tourné ñi ngi saaga Seydina te Seydina yëgul vidéo bi kañ lañ ko nas yëgul vidéo bi kañ lañ ko def xamul ñan ñoo ko def xamul ñan ñoo ko xalaat ma jékki-jékki rek ñu exposé sama photo taxaw di ma saaga lu nekk ñu ma koy wax loolu neex na te bala set ba tey maa ngi toog di muñ pour man sax peut-être ba waa ji defee vidéo bi génn baalu àq Euh, excusez-moi, ça pas valoir, mais il y a une précision pour moi, dire que j'ai une grande réunion quand j'ai du monde. Mais si j'ai l'impression que je l'ai vu, je l'ai vu. C'est ça. Il y a des gens qui ont divisé leur assemblée. Les gens qui ont beaucoup de gens qui ont été divisés pour régner. Et ce que je dis à c'est qu'ils ont gagné. Notre discussion a duré 16 minutes 23 secondes. dama ci génnee nag benn extrait bu deux minutes vingt deux secondes bàyyi noonu di xaar la lay wax ndax montage lay wax wala lay wax parce que boobu ba léegi façon pexe bu nekk ñu ngi koy def pour mën a pour mën a taxal gàqal deru Seydina façon pexe bu nekk nag ñu ngi koy def am na ci koo xamante ne benn infographe jël nañ ko ne ko ne leen defal message yooyu ñuy ñuy ñuy capturé yooyu nga xamante ni moom la wax naan ñoom moom ba mu amee problème ñoom mataa la kagulaar moom ak benn discussion moom ak ku ñaan euh, George je pense su ma jumalee genre yu mel noonu tey jii lay sant ay ñi pour ñu koy def pour mën a gàqal teru Seydina façon jigéen bu nekk ñu ngi koy boole man di ko di di di ma leen forcer ñu may forcer seen bopp pour rek ba am xol lu ñu mën a gàqalee Seydina mu nekk loo xamante ne dama ci bëgg a teg benn si message yoo xam ne dama koy jot te noonu laa dëkkee depuis la set ba léegi. waaw def faale xam naa nag bëggoo ma wax yow nga xam naa dootuma waxante ak yow ndax nag tuub laa sant naa fula nag trop dégg ma lay wax nag benn affaire nag lambu ma nag ba topp sewatu lan la ngi dégg kon maa lay gis nga neex meg ma sopp la bëgg laa wax naa la am fu nekk sama nag woo ko dégg naa xam naa léegi def la xarit woo ko kon nag ku la bàyyi na nga bàyyi suloo nekka ku lay nuy dégg nga fay nag hmm? ba ñëw incha allah bu noonu laa dëkkee boobu ba tey façon message bu nekk façon jigéen bu nekk ay góor jigéen sax ñu ngi ma koy yónnee pour mën a xool naka lañu war mën a gàqalee deru Seydina parce que loolu mooy esprit combat wu Hélène noonu lay def ñi bu yàgg nañoo taxaw si caméra di jëm mag yeewu taxaw jël lumière te si kanam nit ñi di victime si kanam nit ñi ku xamul naan kii dañ koy tooñ boobu ba tey la set ba tey ba ma nekkoon yow man ngay tooñ di di di ko man boobu ba tey noonu laa dëkkee jël nañ Infocra boo xam ay message am bu jeexee dinaa ko capturer dinaa dugal message yi si biir ngeen déglu ko ngeen lire ko du moins lu ma wax. nee na ma man Seydou Grand du ma def sale boulot mais lu ma naqari mooy yow daa un autre gars boo xamante ne dina def liggéey bu nu mel ku lu ñu def ñoo xam ku jin président de la république euh, jabar gu muy nëbb ak doom muy nëbb. di di di di saaga kilifa diine yi mënoo fi bàyyi Seydina man lu ma wax tey euh sama murid yu bari ñaanoon nañ ma ne bul wax mais dina wax lu may wax nag tey ji tey lay mujjëkk a wax tey laay mujjee wax dootuma si waxati parce que ku taxal sa président de la république mënoo fi bàyyi Seydina mais loolu dafa nekk ay mbir yoo xamante ne il fallait que ma leeral ko il fallait que tamit ma ubbi bët ñi nga xam ne ñoo ko topp te ñu topp ko si caaxaan te ki ngeen topp du du nit ku baax du nit ku dëggu. Assane bi nga xam moom lay toog di ko défendre vingt quatre heures sur vingt quatre heure bu raccroché mi ngi wax ay nit lu bon rek lay teg ci deru Assane lu bon rek lay teg ci deru Assane ma dugal li nga xamante ne tey jii mooy li nga xamante ne moom la wax nit ñi xam dina permettre nit ñi xam defuma ko ngir soxate wala dara mais dama bëgg rek nit ñi xam kan mooy nit kii kan mooy nit kii mooy kan du ma fi nekkal di téesante di waxante su ma ci pare tey pare naa ci maa ngi xool leneen parce que ba may commencé léegi am na benn ndaw si moo envoyé message ne ma somoon amuñu ndox amuñu courant man ci yooyu laay dox ñu déglu ko ñëwaat fait ba pour moi xool vidéo boobu je suis tu sais je lui avais signifié le fait que je je, je sortais de toute cette histoire là parce que déjà j'avais pas programmé ni damay liggéey ak moom que dañuy nekk une team euh, quand son truc là ça a commencé j'étais comme ça son cerveau dama koy xam yo, yow xam yo, yo, yo, yow yow man après boobu man ben instant man dañoo dem ba euh, dafa dem benn instant man comprendre tuma parce que man nu ma nu ma laa gisee bu njëkk ni nga naan analyser benn instant dafa dem ba waaj yi man loo xamante ne man luy dëgg moom la wala sama gëm-gëm kenn mënu ma ci détourné lu ma ci même su ma ci ni wéetee man kase sax dinaa gëm loolu. xam nga Seydina. Hmm. Euh, benn affaire am na. pas un seul instant. Hmm. je n'ai cru que le gars fabulait, mentait ou se jouer de l'opinion. <laughs> loolu dëgg du yàgg rek j'ai essayé de lui faire un plan de travail et tout mais il n'en fait que sa tête man mënuma dimbali nit ko xam do ma déglu <laughs> et puis tu as un groupe de groupes yi ay xale yu jigéen yoo xam ne ni que maa ngi am xaliss ci Assane Diouf exactement donc moi quand j'en ai eu marre je l'ai dit xam nga lu may def parce que coow li bëri na euh, stress bi bëri na je n'ai que des merdes depuis que je suis dans en train de t'aider si dama lay dimbali te yàlla tax arrivé à un moment il faut que je pense à ma santé à ma famille sama m'a dafa dem ba ma dafa mel ni Assane took over your life comprendre nga sama jëkkër dem ba ne ma bëggatuma dégg tout boobu fii tellement daf ma gis comment je suis mal. j'ai tourné la page donc c'est vrai donc man je me suis fait avoir du début à la fin non war ma famille, ne léegi te Sénégalais duñu ay ngàkk Sénégalais sont intelligents yow Sénégalais sont intelligents li nga am Amérique huit kër sept këru sëriñ Tuubaa te Sénégal amoo ko non terrain la wax nag waxul non terrain la wax ko. terrain yi yëpp ay mais non léegi léegi euh, fi mu euh, ce que je vois venir c'est que le gars mu ngi ànd ak ay jéen ak ay nit ñuy lever ay fonds xaalis fii xaalis gauche xaalis droite moi j'ai dégagé mes responsabilités depuis wax naa ko ah. je laisse travailler avec ces filles qui sont sur Paris là Paris y a Ren Diop qui est qui était la compagne de parce que Ren Diop jigéen la bëgguma aussi ci vie privée li nga xamante ni lay wax exposé donc loolu dafa nekk rek loo xamante ni euh, mooy nit ki ah. taxaw taxaw Diouf Diouf bu coupé waxal bon lay wax ci et c'est valable pour tout le monde man comprendre nga ay Diop Fall ñi nga Cheikh Cheikh Diop ah. ku que ak problème ku nekk tey jii lii lii ma la wax lii lii mu wax ni loolu wax mais amuloo foo ko prouver man yàllaa ma bëgg yàllaa ma sutural ba nga xamante amoon naa xel bi pour ëllëg si biir ma mën a prouver li nga xam moom lay wax ndax lii mënoo ko wax fenn ba ñu gëm la man nag lu ma naqari nag mooy mënu comprendre taxaw ay nit taxaw di ma saaga loo xamante ne yëgu ko ko jël exposé sama photo taxaw ne man maa masqué sama voix man dinaa wax ak procureur de la république di di di bañ a nëbb sama voix dinaa wax ak le président de la république di bañ neub sama voix di wax ak ay responsable ay ministre ay ku nek di len wax li nga xam mom la sénégalais yi soxla lu sénégalais yi bëgg dégg ma len koy wax te musuma ci neub sama voix am na ñoo xam ne nañ tête tata tête ma wax len ko donc si du si Hélène Diouf wala du si Assane Diouf wala Hélène Gueye ci lay neub sama voix te man wa Sénégal de la vérité aussi comprendre naa seen concept parce que li nak moy lu ñaan lu mu naan euh jinné bu doon mbéj sa né ta xamu fu mbéj fu muy juggé donc xeyna li lañ ci bëggoon te am nañ ko

mais xëy na dinañ ko def dinaa ko def sama YouTube mais du ma ci commenté déjà extrait bi euh, dina nekk léegi si YouTube dans suma pare juste suma pare dinaa ko def en mode public parce que dugal naa ko YouTube mais mi ngi mode privé dinaa ko fa dugal euh, bu ngeen demee si YouTube Seydina Seck officiel euh, di ngeen ko di ngeen di ngeen ko fa amee. encore une fois mu naan way ni ñi ma il faut ñu tudd ma pour mën a am man man maa leen dund man ak Assane bàyyi Assane Assane moom euh, montré na sa fi fidélité am si sa amitié ak yow amul dara lu mu la bañal koo jotal si si yow sax lay ñëw far parce que bu wor di am yow ay wor man nag mbokk yi damay jéggalu rek xam ne loolu laa bëggoon a leeral rek pour wax askan wi ne man awma benn loo xam ne dama koy nëbb wala dama koy wala dama ciy làqatu lu ma bëgg a wax nit ki bu ñu ma doon rey sax ko wala sax wala kuram wala kaanam mu ran ba doonte ña ngi dagg sama baat sax dinaa ko wax loolu moom fu ma dëgg fekk may bàyyi moo taxoon ma tëri na tey il faut ma leeral li nga xamante ni mooy lu xew parce que euh, weekend bi rek dégg naa ay saaga aussi ñu ngi doon kon ma saaga donc loolu rek laa bëggoon mu jeex. vidéo bu fekkee wu fu ñu koy nase fekkee wu fu ñu ko defaree xamu ñu ko def musu ñëw musuma wax ak ñoom xamu na la seen baat original mel parce que gis na S bi SZL mu ne S bi Seydina la bi Zahmet xaw ma ban tur la wax beneen bi ay ay sëtu mbuur kenn xamul lu tur yooyu fu mu jëlee man yàlla xam ne ñooñu musuma leen gis gis teg bët. xaw ma nu ñu mel nekk nekkuñu ami Facebook musuma wax ak ñoom man nag loolu moo jaaxal fu mu jëkkee ñëw rek séeri naa attaqué ma mais nag loolu laa bëggoon indi ay précision xanaa ma tegalaat le audio bi rek ngeen parce que am na ñoo xamante ne peut-être nopp gu bon bi lañ ma joxoon ndax mënuñoo gëm li nga xamante ne ndaw si moo ko wax pour euh, ñu jaare fa nag ñu ñu ñu tàggatoo parce que man awma condition de live ay cinq heures de temps jëmale six heures va faire va tout moi, faire les vidéos. Je suis, tu sais, je lui avais signifié le fait que je, je, je sortais de toute cette histoire-là parce que déjà, je n'avais pas programmé ni de ma ligue avec moi. Que de une petite. Euh, quand son truc-là, ça a commencé, j'étais comme ça, son cerveau. De mon côté. xam nga yow xam nga yow yow après boobu man benn instant dafa dem benn instant man comprendre tout parce que man nu ma nu ma laa gisee bu njëkk ni nga na analyser benn instant dafa dem ba waaj yi man loo xamante ne man luy dëgg moom la wala sama gëm-gëm kenn mënu ma ci détourné lu ma ci même su ma ci wéetee man kase sax dinaa gëm loolu xam nga Seydou daal hmm. euh, benn affaire am na pas un seul instant hmm. je n'ai cru que le gars fabulait mentait ou se jouer de l'opinion <laughs> dëgg du yàgg rek. j'ai essayé de lui faire un plan de travail et tout mais il n'en fait que sa tête. man mënuma dimbali nit koo xam ne doo ma déglu. <laughs> et puis tu as un groupe de groupe yi ay xale yu jigéen yoo xam ne dañoo foog ni que maa ngi am xaalis ci Assane exactement donc boo quand j'en ai eu marre je l'ai dit xam nga lu may def parce que coow li bëri na euh, stress bi bëri na je n'ai que des merdes depuis que je suis dans en train de télé te dama lay dimbali te yàlla tax arrivé à un moment il faut que je pense à ma santé à ma famille sama jëkkër dafa dem ba ne ma dafa mel ni Assane took over your life comprendre nga sama jëkkër dem Beaucoup ne ma bëggatuma dégg tout vos filles. tellement daf ma dis comment je suis mal. j'ai tourné la page donc c'est vrai donc moi, je me suis fait avoir du début à la fin non war ma famille, les léegi te Sénégalais Les ay Sénégalais sont intelligents Les Sénégalais sont intelligents di nga am Amérique huit kër sept këru Sénégal amoo ko non terrain la wax nag waxul kër. non terrain la wax ko. terrain yi yëpp ay fen la mais non léegi léegi euh, fi mu toll nii euh, ce que je vois venir c' est que le gars mu ngi ànd ak ay jigéen ak ay nit ñuy lever ay fonds xaalis fii xaalis gauche xaalis droite moi j'ai dégagé mes responsabilités depuis wax naa ko. Ah. je laisse travailler avec ces filles qui sont sur Paris là Paris il y a Reine Diop qui est qui était la compagne de. Euh, voilà mu nekkoon loo xamante ni moom laa bëggoon a euh, tëjee dellu na di parce que tamit ñu bari euh, samay nit wuñu mais il fallait que ma leeral ko tamit gindi askan tamit ñu xam nit ki kan. donc ñi nga xamante je n'ai rien contre Diouf ñi nga ñu problème ak ñoom man dès le début dama jël sama position ni man droit yaakaar naa liberté d'expression fu sa liberté fu la liberté keneen tàmbalee. am naa droit ne d'accord ma ci combat am mais musuma taxaw ne lii wala lii loolu nag laa